mbokki dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci xew-xewu jamono maanaam ab fait divers boo xamante ni ma ngi xewee foofee ca Touba bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Source A moom mi nga xamante ni moo joxe information bi ab responsable politique bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar bu siiw lool foofee ca diwaanu Touba moom rek moo jiiñ ki nga xamante ni moo di borom këram lii di viol boo xamante ni doon na ko def rakam bu jigéen bu am lu toll ci 14 ans maanaam fukki at ak ñeent moom politique bi nag siiw lool foofee ca diwaanu Touba jotoon na daal di rek euh, tàggoo ak euh, borom këram ginnaaw rek bi nga xamante ni bëggoon na porter plainte ki di jëkkëram te baayam daal di bañoon na ginnaaw rek bi nga xamante ni jot nañoo sëy lu toll ci fukki at ak ñett borom këram bi nga xamante ni nag euh, moom la ji ñaawteef gi maanaam viol bi nga xamante ni def na ko ci rakkam bu jigéen bi nee nañ ab safoor la boo xamante ni ak kilifa gu siiw loolu lay dawalal foofee ca diwaan ba moom soxna si bis bi nga xamante ni magam bu jigéen wax na ni ko jëkkëram dafay sàkku rakam bu jigéen boobe tay atam toll ci quatorze ans bis boobe bëggu doon dara ci dundam gi ba taxoon mu naroon a xaru moom fam bi nag leneen loo xamante ni xamle na ko nee na bi mu sëyee ci la daal di yóbbaale rakkam bu jigéen boobu ay atam toll ci quatorze ans ca kër jëkkëram waaye nag jëkkëram ji daf doon sax rakkam bu jigéen boobe saay suy nelaw wala sax sa bu génnee dem liggéeyi mbir mi nekk mbir bu doy ñaaw na ba foo ko takk weesu na ko lum ci mën di doon Tactic TV mu ngi leen di jaajëfal te fas yéene leen a toppal bi le dossier indi leen ci yeneeni leeral jërë ngeen